dafa yëkkati woon ay kàddu wax ne waa Union européenne jox nañu réewum Sénégal lu toll ci cent dix-huit milliards ngir nag ñu ci xeex lu jëm ci wàllum émigration clandestine te nag koppar yooyee état bu Sénégal fan lu ko dugal loole la Boubacar Seye doon laaj loole moo tax ñu daal di koy déglu daal di koy mandat dépôt journal bi nee na Boubacar Seye bi ko enquêteurs yi laajee maanaam gendarme yi daan na leen di wax lu leer nee na leen mbooleem li nga xam ne wax na ko am na ay documents yoo xam ne moo koy firndeel ndax ñi nga xam ne ñooy waa Union européenne ñoo ko ko yónnee ci ab meelam ci turu madame directrice des Bono moo ko ko envoyé loolee la leen Boubacar Seye wax ma ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak ci libération journal bi di L'As ak Vox Populi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko moom tim muy teel tànk njiitul Horizon sans frontière daat nay wax ne état bu Sénégal li nga xam ne def na ko c'est pas normal waaye nag moom njiitul Pastef joxar bi na baaraamu tuuma Macky Sall ak procureur nee na ñoom lépp ñoom la moom Ousmane Sonko sax daat nay wax ne bi ku dangeeral la maanaam ku zele la dañoo jàpp otage xam ne mooy Boubacar Seye wax am na ay magistrat yoo xam ne ay politiciens lañ procureur bi moom dama ko daal di jëlale te nag procureur bi su ko neexee mën naa ubbi ab instruction judiciaire jëmale ko ci man ak mbooleem ñi nga xam ne maanaam nag daat nañuy wax li nga xam ne moom la Boubacar Seye wax ci ay interrogation jëm ci koppar yi nga xam ne jox nañu ko Sénégal Assane Samb xëy jël xalimaam ci réew mi quotidien nee na Boubacar Seye nag jamono ji dafa mel ni dafay déranger état bu Sénégal état bi sax dañoo jàpp ne Boubacar Seye maanaam ab opposant la ab politicien la bu làqatu moo tax ñu yegg fii fii ñu yegg ak moom waaye nag lii nga xam ne moom la ñu def daal sagalul benn yoon suñu démocratie Boubacar Sèye nag li nga xam ne yëkkati na ko ni ay kàddu état bu Sénégal moo ci waroon a andi ay leeral mbir mi jeex yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy ci ni nga xam ne moom la ñuy yoree lu jëm ci wàllum catastrophe naturelle ak sanitaire ci réewum Sénégal ginnaaw loi 1969 bi nga xam ne fan yu ñu génn moo di modifié nañ ko ci assemblée nationale ni ki démb njiitu réew mi di Macky Sall daan na koy dëggal promulgué na boobale loi yéen kaay gi de la Soleil nee na nag loi bi dañu ko daal di yaatal réew mi ko di ñeene en tout cas li am ba des daal loola xam ngeen nag fukki fan ak ñaar su matee dañu doon wax ne Macky Sall day dem assemblée nationale waaw laaj leen ba xam dañu koy yokkal ñing ñing patati patata journal bi nee na loolee lépp jamono ji daal ca Macky moo yor cëggul guyam mooy buum di buum mi Sénégal nekkatul ci état d'urgence kàddu Seydou Gueye la ma ngi ci Vox Populi yéen kaay gii di Walfadjri nee na nag dëgg gi kay mooy Macky Sall ci boppam moo inauguré ni ki démb ab nee na noppi coronavirus ak ñi nga xam ne ñoo ci faatu Sénégal mooy ñaareelu réew ci Afrique de l'Ouest boo xam ne moo ci ëppale ay décès yéen a gii di réew mi ko di jen xëy di ñu xibaar naan ñu ligne Tata 67 niki démb dafa am benn imprimeur boo xam ne ay atam ñeent fukk ak juróom-ñeent la toll dafa daanu crise jekk-jekk rek faato fi tolloog Cité des Eaux wakaam la waa ji dëkk testé nañ ko coronavirus journal bi nee na bi ñu xoolee nag ay poosam deux mille cent cinquante francs la ñu ci fekk akub ticket akub portable mboolem ñi nga xam ne ay client lañ woon nekk si oto yi ñoom ñëpp dañoo naani kaani dañoo daw yéen a kaay gi di vox populi xëy yóbbu ñu diwaanu Ngajaga di ñu tàggee ab gendarme boo xam ne moo fa faatu ndax fa nga xam ne fa la teenu pétrole la doon tàkkee foofee dañu faa gasoon ab bassin def fa ndox ca ndox moomee fa la gendarme ba tàbbe ñàkk bakkanam yéen a kaay gi de la xëy na ci coow li nga xam ne moo am ci audit fichier électoral bi ñi nga xam ne ñooy waa PDS leen ngir ñu càmbar fichier électoral bi ñoom waa PDS sax jamono ji li nga xam ne moom la ñuy sàkku nag fi ñuy auditer fichier bi présence opposition significative bi maanaam ñi tax ñuy wax ay opposant ci réew mi ñooñee ñu daal koy fekkee yéen kaay gi délibération xëy ci milliards yi nga xam ne Ousmane Sonko daf ko tuumaloon Mamour Diallo ne daf ko ngar daajo moo taxoon Ousmane Sonko ci weeru août mu porté woon ko plainte waaye nag magum attekat yi nee source a ak les échos ñëw nañ ci mbiri jaari sow mi nga xam ne moo ne mes ne menteñ waaye nag xibaar yi nga xam ne moo ci am daal lu wëkkut ab dërëm wëkkul jaari sow maanaam dafa dem ci sañ-sañu boppam wax na ko polis française bi jaarale ko ci ab xaritam xaritam boobee nee na jaari sow nee na na ko senegal yi bàyyi tout tranquille mu dund dundam fa mu nekk moo fa bàyyi boppam dara jotu ko ma ngi si jàmm ak salaam journal bi nee na compte Instagram bu jaari sow sax jamono ji ma ngi dox waaye nag abonné sax dañoo doublé wu maanaam dañoo gën a yokk yéen kaay ci super coupe